Euh, lu jëm ci lu xeetoo ak moom dégg li nga xam ni wax na ko ak premier ministre bu bu Canada bi euh, ni mu ko waxee man sax ci ci olof bi. Hmm. la gën a leer ci man que ci francais bi dafa mel ni li mu wax ci francais euh, xëy na ma ba wute ci xalaat ak ñeneen. Hmm. mais lu ñu ci mën a wax daal assumé na ko xamal na ko ni daal démocratie la mais ñun bokkuñu ak yenn culture bokkuñu lu ñuy lu ñuy def ndax yaakaar nga ni loolu itam. du nuroo ak li nga xam ni moom la moom la waxoon ak président États-Unis mm-hmm. euh, ni ko suñu société pareegul. Mm-hmm. xam nga loo xam ne donc da ci war a catégoriquement je pense que warul mën a am ay ay alibi lii ci démocratie la ñu nekk wala société bu pareegul est-ce que yaakaaruloo ne discours bi mënoon na nekk lu gën a leer. mais mais mais mais mais Pape xam nga président c'est pas la première fois ñu koy poser question. Mm-hmm. ci lu jëm ci loolu. te il a été toujours constant. ci ay réponses am xëy na nag ku mu neex. Mhm. nga gis si leneen. waaw mais liñ ci dañ ko mais man de ma ciy déglu. société sénégalaise moo pareegul. loolu la oh, waxoon. Euh, parce mais mais Pape looloo am société ba nga xamante ne plus de quatre vingt dix pour cent ay jullit lañu cinq pour cent ay catholique lañu ah te amul benn diine boo xamante ne ci ñaari diine yi seq Sénégal loolu nekk na seen yëf mais loolu mënu fi am. te président loolu la wax. léegi nag dafa am lu am fii lañu fi wax référendum. Mhm. lu ñu fi waxul. dafa bëgg a jàllale lii dafa bëgg a jàllale lii. parce que nouveau droit moo taxoon. parce que mais attends est-ce que loolu am na après loolu amul donc bu fekkente ne nag euh, tubaab yi dañoo ñëw ba suñu réew di ko laaj ci loolu. moom mu wax ko réalité bi fi nekk ak position bi ci nekk. man je pense nouveau que droit jaaxaloon nit ñi. Sénégal dañoo nouveau droit bi ñu dugaloon yaa ko wax léegi ci référendum bi. loolu la nit ñi mënul comprendre. mais mais loolu est-ce que tax na mu am. parce que ñu ko doon waxee ci référendum bi c'est comme si ñu ko wote woon rek après ñu appliquer ko te c'était pas le cas du sax loo xam dafa figurer ci biir bañ koy wote mhm. donc président lu mu tontu tey premier ministre canadien bi. man dama jàpp ni kenn amul lu mu ci wax dafa leer nañ dañoo nekk dëkk boo xamante ne ay jullit lañu ay catholique lañu suñu réalité socio-culturelle mayuñu loolu di fi xew. Mm-hmm. loi bi waxul lool loolu kay leer na. Mm-hmm. donc man de gisuma beneen compréhension man boog li ma déglu lii laa dégg te jàpp naa ne que Sénégal loolu lañ doon xaar ci moom pour mu tontu leen loolu. waaw ma mën nga ko déggee noonu mais keneen itam mën na dégg ni ah, tontu bu bu bu bu ñu rafetal la rek ak tontu la boo xam ni itam mën na indi ëllëg leneen loo xam ni. Ah, kenn mënu ko gis nga tontu bu ñu rafetal moom tontu moom dama jàpp ne tontu la man j'ai très bien écouté le président lu mu wax. tey amul kenn koo xam ne mën nga jàpp ne que war nga di xel ñaar xanaa kay xëy na lu ñuy wax ku sa wujj di solom moom doo set Mhm. amaan na nag ñu bokk ci opposition dinañ ne ak ah, kii def ñuy bëlëfe mais daf ñuy bëlëfee ak bëlëfe wuñu man dama jàpp ne que lu mu wax loolooy réalité Sénégal. d' accord te euh, je pense que loolu lañ doon xaar si moom. d' ba tey ci wàllu bitim réew dama gis euh, ci euh, émission bi nga xam Babacar Fall def na ko ci grand jury. Mhm. ak ambassadeur bu France mu wax lu jëm ci wàllu autoroute bi wax itam lu jëm ci terre bi. Mhm. ma gis Oumar Youm def ci benn sortie pour tontu ci loolu. ndax jàpp nga ni loolu dafa nuru ingérance wala pour yow lu aay la parce que tam li mu wax mën nañu jàpp ni loolu la ñëpp wax man bi ma dégloo euh, ki nga xam ni mooy euh, Abdou Ndéné Sall dafa wax ni avril bi nga xam ni moom la moom la ñu avancé mën na nekk mën nañu ci essayer li nga xam ni moom mooy train bi mais bu fekkente ni aussi tout ce qui est technique baaxagul dañuy bàyyi ba ca kanam mm. donc je pense que loolu est-ce que war na indi euh, coow lu mel nii quand ba xam nga xam nga xam nga Pape le Sénégal est un état souverain te quel que soit rapport yu ñu mënti am ak benn dëkk ci xarito bi ci relation diplomatique yi euh, partenariat économique wala leneen lu mu mënti di doon je pense que ku nekk da nga garder sa souveraineté. Mm-hmm. Pape yow mën nga toog ci sa. fii wala sa biir kër di wax teer bi nii heure bii lañ ko waroon kii sax parce que vous êtes sénégalais bu la neexee nga wax ko am nga ci plein droit mm-hmm. mais je pense que tey jii nii quant à une autre personne mel ni comme si dafa am lu muy dicté état Sénégal mm-hmm. je pense que là aussi c'est pas des choses qui passent mm-hmm. ba tax na man dama jàpp ne que rek euh, le ministre Omar Youm a raison de recadrer recadrer mooy lan tey état du Sénégal moo am mais est moom moo ko waroon def Mariam est-ce que bu fekkente ne mbiru diplomatie la est-ce que du Amadou Ba moo ko. mais est-ce lu ñuy wax kako fu Mariam est le ministre de la question. waaw mais xam nga lii aussi dafa. mais mënoo ko ci génne. parce que bu fekkente ne moom il a les éléments et il a l'autorisation du gouvernement pour wax ci loolu mais man gisuma ci euh, lu lu lu tax waru ci mën a wax léegi nag il faut nit ñi jàpp ne que. c'est pas parce que euh, keneen la ko jóge fii que war nañ ko. Ah, xëy na jox xam nga loo xam ne aussi ci wàllu diplomatie la même bu fekkente ni ki ko wax xam nga ni diplomate la est-ce que ah. jàppalu woon ni euh, réaction boobu Oumar Youm def mi ngi gënoon jekke ci Amadou Ba mu def ko. waaw mais xam nga bañ koy def ak bañ koy wax man xawma ci yenn condition lañ ko defee. parce que man moom lépp li ma wax dafa leer. mais li nga xam ne c'est un principe sur lequel. en mhm. tout cas moi je suis convaincu. Mhm. mooy amul kenn ku war a jóge ci beneen réew di dicter Sénégal nan ngay doxalee say projet ah, bu dee bu dee bu dee partenaire bu dugalee loxoom ci projet yi nag. mais tey jii nii ak loxo bi duñ ko mënti di dugal di dugal aussi euh, Sénégal comme ni ma ko waxee léegi nous sommes souverains mm-hmm. souveraineté ba ci ba ci ba ci lan tey jii nii ak bi eggul ci jii nii eggul ci du du dara loo xam ne aussi euh, lu ñu lu ñu maye la parce que loolu aussi dafa baax ñu koy xam. c'est des investissement yoo xam ne président Macky Sall moom moo taxaw ne dafa bëgg vraiment am ay réformes yu bees transport bi ñu améliorer ko ainsi de suite ainsi de suite mais ci li ma xam daal te mun ko wax mooy ne que man dama jàpp ne que Omar Youm lu mu wax dara nekku ci. Mm-hmm. waaw. d'accord euh, mu nekk ci jamono boo xam ni itam seen parti muy APR dafa dafa bëri. pëccëxoo dafa bëri coow euh, pëccëxoo bi yaa ngi ko gis ci biir Macky 2012 euh, gis nga li fa xew euh, ñi nga xam ni ñoo ànd ak ak directeur bu dem dikk bi ak ñi nga xam ni itam ñoom ñooy Aji Mberkane Kanouté ak Moustapha Diagne coow yooyu nga xam ni mi ngi am foofu ci ci ci biir Macky 2012 lan nga jàpp ni moo ko war a mën a indi pour yow personnellement. en fait xam nga politique moom Pape du ma ne mook coow ñoo ànd. waaye euh, des fois bu amee ay coow rek nañu jàpp ne que xëy na parce que y a un dynamisme qui est là euh, parce bu fekkoonte ne. ak ak manque d'autorité. manque d'autorité c'est pas parce que manque si, d'autorité manque d'autorité aussi. manque ku wax Macky 2012 xam nga ni xam nga ni Macky Sall moom mooy seen. moom mooy seen moom mooy seen moom mooy seen leader. manque d'autorité bu ñu tegee coow bu mel noonu muy bëgg a yàgg bientôt mu def. manque d'autorité budul manque d'autorité la manque d'autorité amu fa. mais lépp lu ñu nekk nekk nekk ci ci ci ci biir entité bi aussi su fekkente ni ñoom c'est des responsables de parti yu différents entre-temps ñu teg kii dem ba ci biir am problème seen biir mais problème bi ñu am seen biir mais est-ce que loolu président moom mën nañu wax ne que parce que dafa manque d'autorité. problème bi kay du seen biir problème bi fi nekk nii wër na àddina bi. non non dama la bëgg a wax ne que. Ah, du ci seen biir aussi dama la bëgg a wax ne que. tey jii nii xam nga fu mu doon a métti. ñu toog ne Macky 2012 dee na mais ba tey comme am na attraction bu tax ñëpp ku ci nekk ngay taxaw di wane sa bopp di firndeel di taxaw di naan maay lii may lii maay lii nañ jàpp ne que rek parce que les gens ont envie de faire vivre les choses mm-hmm. léegi nag comme li nga wax lépp loo gis aussi am na fu mu yem mm-hmm. balaa ñoo yegg foofu aussi ñi wax war a wax ak ñoom nañ wax ak ñoom mm-hmm. mais dama jàpp ne que tey jii nii rivalité politique moom yàgg na ci réew mi bu dee fu rivalité politique ñu wax nañ wax ne euh, manque d'autorité kilifa gi moom kon xanaa sax je peux dire que ça a été le cas pour tous les régimes mm-hmm. parce que xam nañ tendance politique nan la mës a doxee ci biir réew mi mm-hmm. mais ak képp kuy responsable ku ko mënti di def aussi da ngay am ci sa biir xel ne ko aussi que tendance dafa am fu mu yem waru la dem ba affecté li nga xam ne moom mooy système bi au sommet moo tax may appeler les responsables de Macky 2012 nañu toog waxtaan ay kilifa lañu ay mag lañu. te ku nekk dàq sa morom camp bu nekk dàq sa morom. waaw mais xam nga c'est-à-dire loolu nga ba pare nga ma wax ni ma autorité am na amul manque d'autorité. cest à ñu taxaw di xool loolu quoi di xool yoo xam ni kenn xamul lan lay nural. amul manque d'autorité nag Pape nga politique du sa biir kër bi nga yor lu la neex nga def lu la neex nga bumi déedéet c'est des gens responsables mais li ma la wax moo ci nekk ak coow lu mu mënte demee demee demee buñ demee ba ci biir. demal ba ci biir ba xam. Mhm. lu ñuy régler la léegi yàggatu parce que dafa am yoo xamante ne aussi mënuñu accepter muy continuer di raam di raam di raam ba ñëw fekk suñu. léegi ba bala ñu koy régler mu ne dafay dégâts. dinañ ko régler ci li ñuy gis parfois ci yéen. jeunes yi par exemple xeexoo boo xam ne deret mën na ci tuuru. wala leneen mën na ci am jeunes yi kay génnee ma ci. Ah. <laughs> jeunes yi ñu ngi waaw ah. mais li ñuy gis rek ci yéen. quoi li ñuy gis ci yéen non non au fait du ñuy gis si ñun gis nga Pape. man souvent dama ko doon xàppale mhm. xëy na nit booy booy booy comparer sax xëy na comparer li nga xam ne taamu nañ ko wala gën nekk na ay ngëneel mhm. mais dama jàpp ne que tendance politique ak adversité politique lam daan jur ci réew bi APR defu ci un mhm. lu ma gëm la man parce que xam nga lu tax. la plupart des militants de nos responsables de nos de de de de ñëpp ñëwuñu nekk ay politiciens professionnels y a une cause qui est ñoom ñu jóg accompagner ki nga xam ne moom mooy président. Mm-hmm. mais ñëpp xam nañ ne que Pape parti socialiste bu njëkk ba. Mm-hmm. PDS bu njëkk ba bu mujj bi ah li fi xew ak ay yeneen année ak liy xew feneen <laughs> mais. mais mais mënul yem aussi parce que yéen trois ans ngeen def opposition dem pouvoir donc yéen mënu yem ak kenn te am leen une partie aussi organisée parce que tey bu fekkoon am ngeen une partie organisée mais loolu mënu ci ñàkk li ngay wax ci parti socialiste da fekk mu organisé loolu moo tax aussi du ñàkk ay si un parti organisé kay moo war ñàkk xeexam non déedéet au contraire non non parti bu ñu organisé rang yi jub non non non non